foogewul woon ndam li lépp foo xamante ni maanaam nekk nañ ko fa rek jéggi na foofu ndax c'est la première fois ci élection ci locale ñu am cent neuf mille voix ci département Mbacké loolu mus am kon bu amee yéen ñi nga xamante yéen tax mu am ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm si taxawaay boobu noonu yéen population bu Touba yéen waa département bu Mbacké ndax nit boo ko defee loo xam mënul ko boppam war na la sant waaye aussi war na tiit ndax ku ne xam na ni fan yii ñu yóbbu muy pénc ndawu réew mi man nii di wax ak yéen nekkoon naa fa am na lu fa nekk loo xam ni ku fa nekkul mënoo koo xam kon ñi nga xamante ñoom la ñuy àndandool pour dem fa yoon def na ñu taxaw waxtaan ak ñoom ndax ku la jiit sa moo la fa ëpp expérience ñu xamal ne la fa nekk si ay coono. xamal leen aussi yan bi leen yan ni mu diisee ak yaakaar bi nga xam ne population bu ak Mbacke am na ko fi ñoom loolu moo waral ma ni député yi nga xam ne tànn nañ leen muy Cheikh Thioro Mbacke di soxna Assou Mbacke Abdou Borom Dër bi di Cheikh Abdou Mbacke Ndaw di Fatma Mbodj danañ daje ñun ñii mi député yi nga xam ñoo war a toggal pencum ndaw réew mi Touba ak Mbacke ñu def pacte boo xam ni. dañu wax ni ñun duñu trahir peuple sénégalais rawut na département Mbacké parce que loolu nag dañu il faut ñu xam loolu parce que assemblée nationale lu nekk nga fa kon trahison boobu nga xamante ne am na ay nit yoo xam ne dafa nekk suñu liste tey jii trahison boobu la ñuy bañ mu am ci député yi gars yi nag fii nga xam mooy département Mbacké rawat na Touba te dëkk fi ñun ñii nga xam ay gorlan nga xam bi nekk am nationale lu nekk dégg nañ ko lu nekk gis nañ ko ñu nekk fu nekkoon si opposition bi ren jii nga xamante ni tey la population bi gën a soxla ku leen toogal tey la population gën a soxla ku leen taxawu tey la population gën a soxla ku leen waxal kon bu ñu am benn complexe pour wane ni ñun Touba lañ jóge wala askan la ñuy taxawal ndax foofu boo fa nekkee boo amee complexe li nga war a wax doo ko wax boo gëmul sax askan li nga war a wax doo boo bàyyee xel ñu ngay jàkkaarlool la nga war a wax doo ko wax kon yéen ñi nga xamante ni yéen lan fal ñu bees ñu war a doo nekk juróomi député doogal si Ahmad Bamba assemblée nationale doogal département Mbacké assemblée nationale nañu fexe ba suñu wax ak suñu jëf yëpp mu jox xamante ni intérêt peuple bi lay doon intérêt Touba lay doon intérêt Mbacké lay doon intérêt commune lay doon ndax kat am tey jii yaakaar naa amul mës amul ci Sénégal ndax Touba tey boo xoolee département bi jox nañu cent neuf mille yoo xamante ni di ñuy topp trois cent cinquante huit cent neuf mille trois cent cinquante am nañu ko loolu nag yaakaar naa ni mus am si département loolu ku ñu ko defal war nga gërëm ña nga xam ñoo tax nga def ko muy population bi comme ni ko waxee woon boo jëlee département Mbacké rawe nañ Benno Bokk Yaakaar soixante douze mille neuf cent quatre vingt dix maanaam dañ leen di ñoom leen am dañ koo triplé kon jàpp naa ni dañ leen di humilier comme ni ñu ko wax woon si campagne humiliation leen def si département bi département yi am Sénégal yëpp di Touba am benn département amu ko si am nañ juróomi député si département bi am nañu aussi ñaari député yoo xam ne Touba moo ko jox liste nationale loolu tamit pour que waa Touba ñu xam ni fal nañu ñaari député si la liste nationale si coalition wàllu kon ñoom ñoo fa nekk nekk fa ay député nañu sant population bi xam ni Touba ñoom ñoo tax ñoom ñu nekk ay député si la liste nationale boobu muy liste nationale bu wàllu boo jëlee rek Touba Mosquée gi nga xamante ni 609 bureau de vote ñoom am na fa écart 70 mille vingt 910 70 mille 910 moom la ñu rawee la commune Touba li nga xam mooy Benno Bokk Yaakaar commune Mbacké ñu rawee fa 7 mille 941 vingt kon loolu mooy li nga xam ni am na écart. boo xam ne kenn mënu ko dab kenn mënu ko dabu kenn mënu ko nattable loolu moo dax tappale yi nga xam ne ñu ko doon jéem a def ci département yenn yi di ko def diaspora bi loolu moo tax mënuñu ko def fii nga xamante ni mooy Touba mënuñu ko def fii nga xam mooy Mbacké ndax amul benn bureau de vote boo xam ni fii may wax a yow muy Touba muy Mbacké boo xamante ni benn boo ko yaakaar gañe na ko kon loolu moo lay wan ni la Touba ak Mbacké dañoo rekk démb tey doo ko ñëw malgré que dugal nañ fi ay milliards yu milliards yu milliards ñëpp ñu bari ñu baree bari ñu nekkoon suñu liste bi ñu jënd leen lu baree bari ñu def ko fi waaye téewul population bi am détermination wax ni ñoom kenn du leen jënd wax ni kenn mënu leen a ger wax ni ñoom Seex Ahmadu Bamba la ñu gëm moom la ñu loolu moo waral ñu taxaw taxawaay boobu nga xamante ni taxaw nañu ko kon boo xoolee au niveau département Mbacké am nañu li nga xamante ni mooy soixante-dix-sept virgule quatre vingt pour cent soixante-dix-sept virgule quatre pour cent moom la la wallu am coalition intercoalition wàllu ak Yewwi li nga xamante ni mooy li am si commune bu Touba soixante-dix-sept virgule quatre-vingt-trois pour Bokk Yaakaar am treize virgule quarante pour cent ni lii maa ngi koy rappelé sama benn xarit naan ko lii mooy wane mooy ñu wotoon bulletin balaa yi 77 pour cent yi nga xam kon jàpp naa ni commune Touba rek am nañu 77 virgule 83 pour cent Macky Sall Touba 13 virgule 40 pour cent la fa am boo jëlee département bi gagné nañ ko 68 virgule 73 pour cent li nga xamante ni mooy Macky Sall am 22 virgule 85 pour cent loolu mooy li nga xamante ni moo am ci résultat yi. ñu rafetlu ko lool sant lool population bi di wax rek loo xam ni dañ koy bàyyi xel ndax ku ne xam na ne Macky Sall ak ñi ma àndal dañoo di ndax fii may wax a yow mooy coalition Wallu ak Yewwi am na 83 députés léegi nii maa ngi confirmé ak gars yi ñun coalition bi ñun ñoo am majorité mais tey ci suba bi 11h jotee ba tegal fanweeri minute ñoom bi ñu xamee ne ñàkk na département yi. ñu ngi wër diaspora bi am na si benn diaspora boo xamante ni si conseil Milan la ñu ngi doon tekkiwaat li nga xam mooy bulletin yi ngir jéem a sensé ngir que ñu mën a am ñoom si la liste nationale bi ma yëgi information yooyu woo naa ñi nga xam mooy na ñaari coordonnateurs yi nga xam mooy mandataires yi muy Déthié Fall ak Lamine Thiam wax leen ni leen Macky Sall diaspora bi day jéem a sensé vote bi ngir que maanaam ñu wàññi taux bi nga xam moom leen rayo si diaspora ngir ñoom ñu mën a am lu bari si liste nationale bi ngir ñu mën na fa ëppale waaye loolu bi leen interpellé tamit gëm naa ni loolu liggéey ba leen si war liggéey liggéey nañ ko mais ñi nga xam nañ daal hold-up électoral duñu ko nangu yéen waa Touba yéen Mbacké yéen population département bi na ngeen ànd vigilance xam ni ñun am nañu majorité biñ doon sàkk di ci noot tepp nag mooy li ngeen ñu waroon def defal ngeen ñu ko ñun ñoo ci des pour ñu delloo la njukkal pour ñu mat suñu place mate suñu place ba nga xamante ni kenn du gis waa Touba ñii di xeeb Touba ci ci Assemblée nationale nga yeb Touba ci Assemblée nationale ngir taxawaay ak kàttan population bi yéen sama collègue député yi honorable député Cheikh Thioro Mbacké honorable député Fatma Mbodj honorable député Soxna Assou Mbacké honorable député Abdou Mbacké Ndaw na xam ni ñii li ñu warloo ak ñoom def nañu ko kon yéen yéen a fi def na ngeen taxaw fii ngeen wax ci kanam population bi jël seen engagement wax ni da ngeen dessus mukk la population Touba Mbacké du ngeen war aussi population Touba ak Mbacké te lépp lu ñuy jéem su yéen da ngeen ko matalee ngir askan wi lépp loo xam mooy seen i jafe-jafe ngeen di ko wax ba pare di wàcc ci ñoom ci terrain bi di waxtaan ak ñoom lépp luy seen saafara li ngeen ci man ngeen di ko ci def bañ a tëj seen téléphone loolu mooy li nga xamante ni mooy tax ëllëg boo soxlaa nit ñi nga am ko man mii di wax ak am na lu ma ci xam ndax wat bii xam naa ni am na ñaari façon wat yu am ndax lii may wax ak yow Touba na mer boo xamante bi ma tëjee si kaso bi ñoom ñëpp maase woon na ni sole dañu sanctionné mag Macky Sall ngir maanaam tëj bi ma tëj si kaso bi résultat bi am na lu mu si wane ndax résultat yi daawul mel nii kon population bu Touba Mbacké na ngeen xam ni lépp lu ma leen defaloon rek war naa ko man a yokk lépp lu ma leen joxoon naa ko yokk ndax man gor laa doon te gor doon du ma jaam te sëñ Baara Doli muy suñu waajur am na lu ñu jàngal képp ku mel ne nen yaa mel ne neen waaye man Cheikh Abdou Bara Doli gor laay doon lépp lu ngeen ma defal dinaa leen fay dinaa leen jox sama bopp dinaa leen jox sama lépp ak sama jox sama temps xam ni disponible na à tout moment bu ñu ma soxlaa fun ma soxlaa dinaa wàcc si yéen lu ngeen ma defloo dinaa leen ko defal ngir intérêt Touba ngir intérêt Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul loolu maa jël engagement man Seex Abdou Mbacké Bara Dolly noonu lay taxawee Assemblée nationale ndax taxawaay boobu noonu moo tax tey jii bi ma soxlaa bin ma jiitalee ngeen yëkkati ma jàppale ma di nga xamante ni mooy jàppale ma yëkkati ma taxawu ma siggil ma si kanamu samay nawle ndax tey jii résultat bi am amul fenn loolu nag am na lu ko waral dégg nañ maanaam li ngeen ñu déglu suñu nopp dégg nañu ko te doon ko jëf incha allah benn bis topp ma leen di wax ni lii nga xamante ni mooy li am fan yii yëpp dégg nañu ko am na ñu benn collègue woon boo xam ne ñu woon ci liste bi nga xam ne liste wàll bërki démb altine muy démb altine Macky Sall yónnee na ko oto bu bees bullu oto bees bullu ngir contre ko ngopar sa liste te mu ñu woon si biir liste bi kooku jëruñu tudd turam même bu fekkente ni liste bi àgg na si moom du nekk député du cessé parce que dafa démissionné woon loolu maa leen ko wax ndax kenn du jaay kenn du ñu jaay te ci li nga xam mooy campagne bi ngir xaalis ñu def élection bu pare ci suba nga Macky Sall jël jël oto bees pour yónnee la ñu ne boo nekkee député da ngay jaay député boobu moo tax ñun jël na suñu matuwaay waxtaan nañ si ak suñu avocat waxtaan nañ si ak direction coalition bi mooy même bu Diallo nekk député du siège Assemblée nationale loolu mooy li wér kooku nag xam na boppam ñun xam nañu ko jur ñu jaas turam ma ni kenn ku nekk la nga def yaay jël say responsable am na ñaar kenn ki moo nekkoon numéro 13 kenn ki moo nekkoon numéro 15 naa si am tam bu nekkee Assemblée nationale dinaa bàyyi Assemblée ndax ñoom du nekk du nekk ay député loolu maa leen koy xamal ndax borom kajam borom borom mbajum kanam koy fajal ñun mu ñu traité lu nekk say frère tey ji nga wote contre ñu ñu naan liste bi da nga jàll doo jàll même boo jàllee doo seese ndax am na loo xam boo ko lekkee moo moo ko te góor su sa bopp loolu mooy li am kooku may wax nag Macky Sall jox na ko xaalis si campagne bi bi ñu campagne ba ma Macky Sall jox na ko oto bu bees bullu mu yóbbu ko sama baay démb na ko ñaana ma si oto Macky ma ko jox kooku xam na boppam ñun soxlawuñu oto oto boo xamante ni bi ngay war ci jaratu askan la ko jëlee jox la ko kooku yaakaar naa boo ko waree gàcce lay doon ñun oto yi ñoo ko jël suñu bopp soxla ñu oto Macky Sall soxla wuñu xaalis su Macky Sall li ñu soxla mooy yéen askan Touba bi li ñu ñu defal moo ñu leen fay ci loolu lañ soxla kon loolu moo tax naa leen woo pour ñu waxtaan sant leen gërëm leen ñaanal leen wax ni kat sas ngeen ñu sas boobu noonu daan ko matale Assemblée nationale ndax ay nit bu ngeen àndee ba agsi fii doo tudd tur doo tuddee da nga bàyyi ñen mais na ngeen xam ni képp ku bokkoon ci coalition bi nga nekk wallu nga nekk Yewwi nga bokk nekkal fi askan wi nga bokk taxawu Sénégal moo yëpp ci la bokk kon ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm nag suñu frère monsieur Bougane Gueye Dany mi nga xam déplacé woon na ñëw ba fii def fi campagne am kooku il faut ñu gërëm ko message spécial ndax nit la koo xamante ni dafa bàyyiwul ay téem yëpp ñëw jàpp nañu bu ñu amee ndam war nañ koo boole ci ngërëm loolu ndax dugal na si loxoom dugal na si si temps am kon maa ngi xam yamale fii kàddu gi di jox ki nga xam mooy Serigne Cheikh Thioro bu waxee pare ñu jox du Mbacké na mu traduire en français may sant ñëpp di gërëm ñëpp dinañ ñaanal yàlla daal xam ni engagement yi ñu jël engagement yooyu dañ ko respecté man day képp koo xam nekk nga Assemblée nationale ci député yi Fatma Mbodj mii soxna Astou Mbacké suñu bàjjan Cheikh Thioro mii Abdou Mbacké Ndaw képp koo xam nekk nga sama fàq la fa def defoo ko naa taxaw askan ni leen seen député di ngeen a def ko ba lu ma ma ko kon loolu moo tax naa leen ko wax asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë a ndax gis nañ campagne bi ni mu demee am na ñoo xam ne gis nañ ni nu campagne waaye dañ koy ñaaw ndax arrogance la nu campagne ndax dëkk bi na mu méttee ñëpp yëpp ko ñu toog ba campagne bi des ay fan ñu mel ni ñuy mbéj nit ñi di leen jënd di leen ger waaye won ngeen leen ne leen kenn du leen jënd kenn du leen jar ay kon peuple du département de Mbacké jaaraamaa amee na leen dugal bu rëy ñun nag dañu engagé wu en politique yor suñu leader ndax intercoalition lañ demee wallu ak Yewwi Askan Wi ñun ñu investir ñu sous la bannière de Yewwi Askan Wi bokk ci parti Pastef muy man ak seen Cheikh Thioro bi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef Touba ma jël kàddoom di wax ci moom kon population bi sas ngeen ñu waaye ko ba nga xam ne ba ñu engagé en politique dañu nekkoon ay observateur ma jekki-jekki ne damay dugg nekk actrice ci politique dootuma toog di seetaan wala may def utiliser sama carte mais il est temps pour ñëpp dugal ci seen loxo ndax kenn ku ne war nga joxe sa gisin ci réew mi dugal ci sa loxo changement bi ñu bëgg muy un changement positif un Sénégal pour tous li ñëpp bokk ñëpp jot ko jot nañu ci liggéey ci kon peuple de Mbacké particulièrement commune de Touba sas ngeen ñu waaye na xam ne dañuy doon des députés du peuple député peuple bi la war a teewal à l'Assemblée nationale ñu nekk Macky Sall la ñu gisee ay député yoo xam ne dañu naan suñuy leader lu fi teg waaye ñun ay nit ñu mature lañu ay nit lañ ñoo xamante ne nii li ñu engagé wu seetoon nañu ko leader bi lanu ànd ak moom xam nañu ko projet ak lu développé Sénégal moo tax ñu engagé wu auprès de nos leaders te loolu lee man Fatma Mbodj ma engagé président Ousmane Sonko ànd naa conscience boo xam ne la ma yóbbu assemblée nationale c' est le peuple se c' est le de Mbacké waaye nekkul ne rek damay gumba ndax lu lu Ousmane Sonko bëgg ëllëg ma signé ko déedéet engagé wu ma ci loolu donc maa ngi engagé wu solennellement ak sama mbokk yi ma fi toogal ñëpp sëñ Cheikh Abdou mi nga xam ne ñu koy jaaraamaan jaajëfal ko ndax moo nekkoon suñu tête de liste lu ko war def na ko di soxnaa su Mbàkke bi nga xam ne suñu bàjjen la suñu kilifa la sëñ Cheikh Thioro Mbàkke suñu coordonnateur taxawaayam rafet lool Abdou Mbàkke Ndaw bokk ci coalition Yewwi Askan Wi moom tamit taxawaayam rafetlu nañu ko nun dey ay député bi peuple lañ fa séenee doon te ñoo ngi doon dugg ak la quatorzième législature mais quatorzième boobu incha allahu rabbi engagé nañu auprès du peuple fas yéene leen faa teewal teewal fa askan wi ndax nag mënatuñu nax kenn askan wi wane nañ seen bopp exprimé wu nañu ne nañ ne kenn du leen jënd ku liggéey réew mi la ñu bëgg te defe naa buñ ko deful suñu bopp lañu nax waaye naxatuñ le peuple sénégalais ndax dépassé nañ foo xamante ne dañ leen di nax wala di leen jënd wala di leen tuur lëndëm ndax c'est un peuple mature macha allah un peuple di jaajëfal jigéen ñi ndax ku ne xam nga jigéen coonoon kër gi ak njaboot gi ak sëriñ bi war leen toppatoo te ñoom ñëpp dañu doon ànd sur le terrain di battre campagne ndax bëgg ñu am pour am un Sénégal nouveau